Mhm, salaamaaleykum mbokk yi nga xamante ni yéen saxoo dañu topp si seen émission sunu yaakaar amaat nañu mbégte teew fii ñu ngi leen di gërëm di leen sant ci seen takkute di nuyu kenn ku nekk ci turam ak ci santam di ñaanal ñi nga xamante ni dañoo tawat yàlla fëgg seen bopp yëkk ci leen ba ñu mën a delluwaat seen yëngu-yëngu nekk si ay jafe-jafe tam di ñaan yàlla wàllu si leen si jafe-jafe yooyu ngir mën leen cee mën leen cee musal amaat nañu mbégte di wéyale suñu jukki bi nga xam ne tàmbale woon nañ ko ci euh, téereb bokk ci indil bi tey jii ngi toll ci saar ñaar fukk ak benn euh, ci euh, saar yu mujj nu mujj jukki gis na ni ni yeesu doon dëgmalee yoonu Yerusalem ci loolu ci euh, noonu la ñuy wéyalee tamit suñu gëstu tey bii tamit yéesu dugg na Yerusalem léegi. gannaaw loolu yéesu ak taalibe yi jege woon nañu Yerusalem ba ak si dëkku Betfase ci wetu tundu Oliw ya noonu yéesu yebal ñaari taalibe ne leen dem leen ci dëkk bii ci seen kanam. bu ngeen àggee dingeen gis mbaam mu ñu yeew ak cumburam yiwi leen indil ma leen te bu leen kenn waxee dara ngeen ne ko borom bi daf leen a soxla kon ca saasa dina leen bàyyi ñu dem yéesu def na noonu ngir lañu waxoon jaara ko ci yonent am bi mu naan waxal waa siyon seen buur a ngi ñëw ci yéen ku lewet la te war mbaam sëf dib cumbur doomu mbaam nonu talibe ye dem def lolou len yesu sant ñu indi mbamma mom ak cumburga lal ci seen yere yesu tok ca ña ëpp ca mbolo ma lal seen yere ca yoon wa ñen ña dag ay ciari garab lal len it ca yoon wa mbolo ña ko jiti ak ña ko top ñep di wax ca kaw naan ozana yow sutu daawuda bi yow mi ñew ci turu borom bi ku barkel nga ca bërepp yu gëna kawe nañu ne Hosanna bi nga xamee ne yéesu dugg na Yerusalem dëkk bépp yëngatu ne kii moo di kan mbooloo ma ne leen kii moo di yonentu yàlla yéesu bi jóge Nasaret ci Galile bi loolu amee Yeesu dugg ci kër yàlla ga dàq ñépp ña fa ña fay jaay ak ña fay jënd mu daaneel taaba taabali weccikatu xaalis ya ak tooguy jaaykat pitax ya naan bind mi nee na sama kër dinañu ko wooye këru ñaan ci yàlla waaye yéen def ngeen ko këru sàcc noonu ay gumba ak yi la ñëw ci moom ci kër yàlla ga mu faj leen bi nga xamee ne saraxalkat yu mag ya ak xutbakat ya gis nañu yëf yooyu doy waar ya mu def te dégg xale yu ndaw yi nekk ca kër yàlla ga di wax ci kaw naan Hosanna yow sëtu Daawuda bi ñu daldi mer noonu ñu ne yéesu ndax dégg nga li ñuy wax Yeesu ne leen waaw dégg naa ko ndax mosu leen a jàng lii ci mbind mi ci gémmiñu perantal yi ak ñiy nàmp sàkkal nga sa bopp ay cant bi Yeesu waxee loolu mu bàyyi leen génn dëkk ba jëm Betani fanaan fa Yeesu rëbb na garabu figg ga ci suba teel Yeesu si ci dëkk ba mu xiif noonu mu seen garabu fig ca yoon wa waaye bi mu fa agsee gisu ca dara dul ay xob rekk ci kaw loolu yeesu ne ko dootuloo meññ mukk ca saa sa figg daal di wow bi nga xamee ne taalibe yi gis nañu loolu ñu waaru naan nan la figg gi daldi di wowee ci taxaw taxawaay bi noonu yeesu ne leen ci dëgg maa ngi leen koy wax su ngeen gëmee te bañ a werante dingeen def li li ma def figg gi rax ca doole bu ngeen nee tund wale jógal tàbbi ca géej ga dina ko def te lépp lu ngeen laaj ci ñaan bu ngeen ci boolee ngëm dingeen ci jot gannaaw loolu yéesu dugg ca kër yàlla ga di fa jàngale bi muy jàngale nag saraxalekat yu mag ya ak njiit xeet wa ñëw ci moom ne ko yëf yii ngay def ci ban sañ-sañ nga koy defee ku la may boobu sañ-sañ yeesu ne leen man itam dinaa leen laaj lenn bu ngeen ma ko waxee kon dinaa leen wax ci sañ ci ban sañ-sañ laay defee yëf yii la yaxee daan def di sóob nit ñi ci ndox fu mu ko jëlee ci yàlla wala ci nit ñi ci kaw loolu ñu daal werante ci seen biir naan bu ñu nee ci yàlla dinañu laaj lu tax gëmu leen ko te bu ñu nee ci nit ñi mu kon mbooloo mi dina dal suñu kaw ndaxte ñépp teg nañu yaxee ab yonent ñu ne yéesu nag loolu xamuñu ko noonu yéesu ne leen kon man itam duma leen wax ci ban sañ-sañ laay defee yëf yii lu di seen xalaat ci lii kenn nit amoon na ñaari doom am bés mu ñëw ca taaw ba ne ko sama doom demal tey jii liggéey ji sa sama toolu raisin taaw ba ne ko ma waaye gannaaw loolu xelam yedd ko mu dem gannaaw gi baay bi ñëw ca tofa ba wax ko noonu mu ne ko waaw waaye demul noonu yéesu laaj kan ci ñaari doom yooyu moo def coobare baayam ñu ne taaw bi yeesu ni leen ci dëgg maa ngi leen koy wax juutikat yi ak jigéeni mooykat yi ñoo leen jëkk a dugg ci nguur yi Yàlla aji kawe ji ndaxte Yaxya ñëw na ci yéen ci yoonu njub te gëmu leen ko waaye juutikat yi ak jigéenu mooykat yi gëm nañu ko te gannaaw bi ngeen gisee loolu seen xol soppikuwul sax ngeen gëm ko léebu baykat yi rey doomu boroom tool bi Yeesu teg ci ne déglu leen benn léeb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 nu muy def baykat yooyu ñu ne ko dina rey reyin wu ñaaw nit ñu soxor ñooñu batale tool bi yeneen baykat yi koy jox wàllam ci jamonoy meññeef kon yéesu ne leen xanaa mosuleen a jàng lii ci mbind yi doj wi tabaxkat yi sànni mujj na di dooj doju koñ wi ci borom bi la loolu jóge te yemu na ci loolu moo tax maa ngi leen koy wax dinañu leen a xañ nguur yàlla dénk ko xeet wuy def ay jëfam ku dal ci doj wi damatoo ku mu dal ci sa kaw rajaxala bi nga xamee ne saraxkat yu mag ya ak farisen ya dégg nañu léebam yooyu ñu xam ne ñoom lay wax ñoonu ñu di ko fexe jàpp waaye ragal nañu nit ña ndaxte ñépp teg nañu ko ab yonent lu ñu mën a tënk rek ci aaya ñaar fukk benn bi mooy gis nañu Yeesu dugg na Yerusalem commencé na jànkonteeg wala jëflanteeg sëriñ seeg xutbakat yeeg ñi nga xam ne ñoo nekk ci kër yàlla ga gis nañ it na mu demee ci kër yàlla ga génn ña fa nekkoon parce que ñëpp xam nañ kër yàlla këru ñaan la war a doon këru wéet ak yàlla waaye nit ñi dañoo def dañ ko defoon ab marché di fa jaay lépp mu nga fa woon ñi daan wecci xaalis ñi daan jaay ay jur lépp ñu nga fa woon Yeesu ñëw dindi loolu ba mu set wecc génn leen fa raxas ko ba mu set wecc ci noonu nag ñu jàppal ko ñu jàppal ko mer di ko fexee nag fiir ak wut pexe buñ ko buñ ko reyee loolu lañ mën a tënk kan ci ay bés yi ñëw dinañu wéy suñu njàng suñu jukki ci bi gannaaw bi Yeesu duggee Yerusalem ba tàmbalee di jëflante jëflanteeg sëriñ seek xutbakat ya ak njiitu réew ma lan moo ci topp kon ñu ngi leen di gërëm di leen santaat den fàtte rek ni mën ngeen jokkoo ak ñun ci buumu jokkooy ci numéro yooyu ngeen di gis wala it su ngeen dégloo njàngale yi ba noppi mën ngeen bind seen xalaat wala seeni laaj ci suufu njàngale bi ci noonu dinañu tontu émission bii di sunu yaakaar mi ngi leen di gërëm di leen sant di leen jox dox daje yeneen a bés ci yeneen i jukki jërë ngeen jëf na leen yàlla barkeel yéen ñëpp